الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور اللهم بلغ ما قرأناه والنور ما طلبنا إلى رؤوس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحاب أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وزعنا وأساساتنا ومصائنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يا ميل ميل أجمعين خامة وإلى جميع أصحاب الخيرات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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته waaw ah, gannaaw bi ñuy sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant di gërëm ci turu suñu président kilifa yi fi toog yëpp eh, di sant monsieur le maire eh, wax dëgg yàlla kontaan ci turu président yaakaar naa sabab li jaru jaaraat wax nañ ko mais ñun dañuy association boo xam ne dafa regrouper ay handicapé am na ay handicapé moteur am na ñoo xam ne su euh, malentendant la am na ñoo xam ne ay malvoyant la ñun nag suñu mébét mooy bokk ci ñi nga xam ne dinañ développer commune bi donc duñu euh, ñu bëgg aussi ci loolu euh, di sant monsieur le maire mi nga xam ne parce que euh, dafa am loo xam ne lu mel ni yenn événement yi koo xam ne loxoom jotul ginnaaw yow nga ñëw yëkkati fisteen jox ko yow li ngay def ci moom xamoo sax lu mu toll rawatina nag nga yëkkati nangam mil jox ko rawatina nga yëkkati saaku ceeb jox ko jox ko kafe jox ko suukar jox ko meew jox ko tàndarma waxuma la sax mbette bi nga koy defar mais yàlla euh, lim lay defar rek xamoo nu mu toll te yow da nga koy defar ay de centaines et des centaines ñoo xam ne xamoo leen sax donc loolu yàlla ko ci yàlla fay. dañu ne nag ñun biñ ko ko waxee moom daf ko jaglewaat président de la république son excellence Macky Sall ñuy ñaanal suñu président. yàlla defal ko jàmm yàlla aar ko ba nga xam ne li mu yéene ci Sénégal yàlla na ko suñu borom yeggale parce que ñun gëm nañ ne bu ko yeggalee suñu njëriñ la beneen bi ci topp mooy moom aussi ñu ñaanal ko yàlla guddal ay fanam yàlla comme ne ko suñu kilifa waxee dolli suturaal xam nañ aussi yéeneem ci commune bi yalla ko suñu borom motali ah li ci dess nak mom dañuy sant rek baña monopoliser la parole xeyna peut-être après président bu amé lañ si jot dana si jot way wax deug yalla ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp té di ñaanal ñepp jamm buñu ñu buñu limé jum donc kontaan nañ lol lol lol lool assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man la amade Demba Diène di conseil municipal fi ci commune euh honorable député maire daf mo wax ma jël ko cadeau parce que nee ni mu le ni mu jigéen ni ñi ko defal li manu jël cadeau manu yëkëtu ben cadeau ndax fiñu fiñu tollu ci mom lolou tax mu jox ma cadeau gi cadeau gi nag nee ma yëkëti ko ci turu ngërëm ak sant ak di leen jëfal si li ngeen def nii tey damay répété waat rek wax ne mënul jël kàddu ndax jigéen ji nga jigéen jigéen jigéen ñaay gi nga ko jege ñoom ñiy def lii mooy ñi ñuy wax handicapé yi moom nee na considéré leen comme handicapé sax parce que am na ñu ko jigéen ñu mu bokkal ndey ak baay ñu nekk si biir groupe bi yàlla teg natt boobu si ñoom mais terewu leen liggéey terewul leen def leneen lu ñu war a def te moom lu muy def si commune bi dañuy wax ne ñoom lay jëkk jiital avant muy jëf keneen ñoom waxal nañ seen bopp léegi muy bu jëmee si wàllu sukooru koor jëm si wàllu tabaski lu ñu war a defal fii si ndimbal bu jógee si commune bi dem si population yi handicapés yi la jëkk xalaat te ñoom ñooy jëkk jot seen wàll donc loolu moo waral jegeñaay biñ ko jegeñeel ba tax tey mu am émotion ba mënul jël kàddu mu jox ma kàddu kàddu gi nag mën na ma kaa wax ne ma ko bëgg a waxee moom dama koy jëm a jotali rek muy kàddu ngërëm gi muy jotali mu ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal li leen yàlla teg ñoom nii mu oyof si ñoom mooy ñu nangu ko ak xol xam ne benn lañ ñoom société lañu bokk te ñoom xamal nañ seen bopp ba ñu ñafe di liggéeyal seen bopp li leen warloog moom ak ñoom mu ngi koy def mu ngi gërëm en particulier imam Modou Gueye muy président des imams si commune Bambilor mu taxawal fi imam ci Seck di gërëm imam yi fi toog yëpp ak notable yi ak ñëpp kàddu gi bu ma jox ni tamit nee na dafa joxe si kàddu ni mu ko doon jëlee si kàddu commune bi mooy conseil yëpp ñu ngi gërëm ñii fi nekk nii li ñu def nii dafa sori si ñun parce que initiative bii am nii bett na ko moom sax ñu ñëw ba sa commune bi wàcc la këf kaamil moom mu am oyof teegu ne nañ si jiital président la république parce que moom moo yor Sénégal te jàmm bu amee Sénégal moom mooy law bu yëg si fii jàmm mën na am commune Bambilor rek ñàkk Sénégal gi yëpp donc moo tax mën nañu jiital si président jiital sa réew mi teg si maam mi mu ngi ñaan yàlla jàmm ji yàlla na fi sax yàlla na fi yàgg di gërëm ñëpp di sant ñëpp kàddu yi daal mënoon naa ëpp lii mais xam naa dañ koy yemale fii yàlla na yàlla nangu.